ndax ku nekk xam nga ne armée li Pikine yi fees na feesaay goo xam ne ëpp na benn bàmmeel boo xam ne dañ ciy def ay juróomi nit ay juróom-benn nit te loolu dal commune bu Pikine muy armée nationale yi moo dal yeneen communes yi comme la commune de mbaaw dal commune u Thiaroye dal commune u Diamaguène Sicap dal commune pikin dal commune u Malika dal commune yëmbal sud dal commune yëmbal nord kon mo dal commune mo dal département bi yëpp kon su monsieur Abdoulaye Timbo maire de la ville di ci waxtaan ak président de la république xamne li kat lu population Pikine beug la comme niñu ñu bëggee comme niñu ñu bëggee kër comme niñu ñu bëggee CM comme niñu ñu bëggee comme niñu ñu lenen non, lañu la ay armel parce que kenn ku nekk bëgg nga soy dund ci sa kër ci teddange soo soldé tamit ñu sul la fo xamné ne teddange lay doon kon sous président de la république waxtané ak le maire Abdoulaye Timbo ci volonté volonté politique am nga xamné population am lay déglu ba war ño jox ci biir forêt bu mbaaw 780 hectares yo xamné mo ngi nek ci biir forêt bu mbaaw président de la république dindi ci 10 hectares pour affecter que population bu Pikine dama wax ne loolu jaadu na defe naa ne loolu rafet kon ñun dañuy wax ak président de la république ñun délégué des quartiers yi nga xamné ño ëmb communes yi nek populations population bi ci quartier yi lañ dëkk bés bu sét nit ñangi ngi dee dem di soli suñu ko yégué ak suñu ko yëgul kon bëgg nañu ay armel yo xamné bu ñu génn àdduna foofu lañ ñuy denc loolu nag am na ci armeel yi catholique même armeel yu musulman yi am fii ci biir forêt bu mbaaw président dig ñu ko nangul ko le maire Abdoulaye Timbo affecté ñu dix hectares ñu ngi koy encouragé ji encouragé tamit mboole ministre yi nga xam ne ñoo ci jàpp ba président mën ñu affecté hectares yooyu ci biir forêt bi ndax kat defuñu ko ay kër ñi koy toppatoo du ñoom seen bopp lañ koy toppatool mais population bu Pikine lañ koy toppatool mooy que ñu jox ñu dix hectares yi nga xam ne moom la am ci biir forêt bu Mbaaw pour que ñu mën ko def ay cimetière musulman et chrétien def ci mosquée def ci morgo def ci parking boo xamante ni ci la ñuy gaare loolu defe naa lu jaadu la président ñu ngi lay encouragé ñu ngi lay encouragé ci décret bii nga def ko affecté ko pré affecté ko le maire Abdoulaye Timbo ñu ngi la ciy ñu ngi la ciy encouragé di la ñaanal di la ñaanal di wax ne li ñu wax léegi ci biir nit ñi lépp lu ñu mas jàmbat ci biir Pikine yow président de la république def nga ci satisfaction bu mat sëkk kon ñu ngi la ci xaar pour lii nag ñu mën ko agale ñu def ko loolu daal lañ fi amoon pour daje tey délégué de quartier yëpp daje nag ñëpp ànd daje tous les délégués de quartier dañ ko mënul lim benn par benn mais tous les délégués de daje nañu fi ànd ci biir kaddu mooy que nous avons 10 hectares. Nous sommes le président de la République. Nous avons fait des cimetières.